ndax euh, ñoom njaago comprendre nañ li xew euh, ba tax na nag ñu daal di koy teggil euh, pois boobu kon bàjjen satisfaction la am bi ko sawru waxee que ni rek dafa ñëw ngir indil bu ndaw warugar bi waaye juumutoon muy loo xam ne nag bàjjen kontaan na ci bu baax a baax waaye nag mujjee naa comprendre que ni li xew yëpp dil ci entre njaago ak sawru ndax nit ñi doxalee rek mën na tax ñëpp daal di comprendre kon mi nga xam ni moo di bàjjen xam na lépp li xew donte boobu moom mooy li gën ndax ñoom ñëpp dañoo yërëm bu ndaw te yin bëgguñu benn yoon loo xam ni da koy euh, métti ñu jàll ci bu ndaw moom nag dafa jaaxle ndax moom euh, à chaque fois ku wax sama jëkkër wala mbiru mariage rek da koy laajaat comme si rek nekkul di préparer mariage wala nag nekkul dañ koy waaj a takk nag lu ko jaaxal la euh, ndax bu waxee waxu sawru rek nit ñi dañuy mel ni mbir mi ñoru leen ñu jàll ci moom sawru moom nag mel na ni dafa am ay dut ndax jàpp na ni li ñu commencé ndax dinañu ko mun a eggali ndax yaakaar naa comme li ñuy wax rek xol du fen lu fees si xol rek feeñ ci jëf ba tax tax na moom mi nga xam ni moo di sawru tiit na bu baax a baax que ni li mu commencé ak njaago du continuer ndax moom bu gisee njaago rek day tàggalekoo sagoom donte nag euh, na xeex ak xolam nag na li mu bëgg xam na ni rek moom mooy li gën euh, si bu ndaw ñu jàll ci bàjjen bàjjen nag comprendre na lépp ba tax mu woo njaago di ko remercier ci sacrifice bi nga xam ni def na ko euh, ndax bàjjen comprendre na bu baax a baax waaye rassuré na ko que ni sawru moom dina mujj ci ay loxoom ndax bu ndaw ku ne xam na ni ñoom jàpp nañu ni rek day dee balaa moo moo yàgg kon nag euh, ci ay loxoom rek lay euh, mujjee euh, kon bàjjen yaakaar naa ni rek kontaan na ci njaago ndax njaago li mu def yaakaar naa ni ñu ko mën a bëri wuñu ndax bàyyi sa bonheur ndax bonheuru jàmbur nekk na loo xam ne du lu yomb benn yoon ñu jàll ci bu ndaw moom nag mi ngi waxtaan ak sawru ndax jàpp na ni sawru bugg ko ndax comportement wanewul benn yoon boo xam ni bëgg na nit dem ba koy waaj takk waaye sawru daral na xelam ndax nag noonu rek la mën a def ñu jàll ci bu ndaw moom nag dafa kontaan di préparer nag toggam ngir bégal ki nga xam ni moo di sawru euh, ba tax na nag muy euh, sàkku ci njaago ngir mu dem waxtaanal ko ak sawru moom bu ndaw kon jamono ji lenn rek la bëgg te mooy am jëkkër génn kër gi euh, waaye nag moom lijjantiwut leneen waaye takk bi nga xam ni sawru bu na ko koo takk nekk na loo xam ni rek lu ko neex la te it kontaan na ci bu baax baax ñu jàll ci moom sawru moom nag dafa am ay doute bi nga xamee ni njaago wax na ko ci résultat yi que ni tonton maaku li mu wax ci feebaru ki nga xam ni moo di bu ndaw muy loo xam ni lu ko jaaxal la ndax nee na bu ndaw nuruwul benn yoon koo xam ni feebar na wala nag koo xam ni yaa ngi waaj a euh, faatu kon moom mi nga xam ni moo di sawru amaana mbir mi dina ko lijjanti ndax ku xam na ni tonton Maako nanguwul joxe résultat yi te nag kenn waru koo wóolu ndax euh, xolam ko tijji woon euh, njaago rek nga ciy daal di fekk ñu jàll ci moom Maako moom nag mu ngi continuer di fen oh, ngeen baal ma ci kàddu gi wala di wax lu dul dëgg ci résultat yi nga xam ni mooy résultat yi bu ndaw yi te it nag bëggul kenn gis résultat yi mu mel ni kon ki nga xam ni moo di Maako moom li ko intéressé rek la wax wala lu la wax ndax takkul euh, njaago moom dina am rek occasion nu mu takkee euh, njaago si noonu nag mu profité wu bu baax a baax ngir nag euh, fiir ki nga xam ni mooy bu ndaw ngir jaxase ko ak njaago waaye jàllul ndax ki nga xam ni moo di bu ndaw fi ko njaago teg la teg njaago te jàpp na ni moom njaago benn la ñu ñu jeexal ak njaago njaago nag commencé naa fiir ci diggante bu ndaw ak ki nga xam ni moo di tawru muy loo xam ni kon yombul benn yoon ndax yaakaar naa ki nga bëgg du yomb benn yoon rek nga koy jéem a wala sax nag bu ko bàyyee beneen jigéen donte nag njaago lu baax la si jublu waaye dina métti trop ci moom te it nag dina muñ trop lu métti ndax loolu yombul uh, benn yoon waaye nag uh, bi uh, bi bu ndaw gisee comportement am laaj na ko waaye njaago rek inventé na histoire ngir génn ci muy kon njaago nekk na koo xam ni kon gaañ boppam moo ko gënal gaañ bu ndaw mu mel ni kon fi mu teg bu ndaw mën naa ni wala teg boppam dañu naan nag sama bopp mën a gënal du bañ naa la waaye moom njaago doxaleewul noonu war na bu ndaw carrément que ni bonheuram moo ko gënal kon bokkente la ñu série contre polygamie jox leen dig daje si beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee ba si cloche de notification yi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf